internet yu Saint-Louis TV daleen ak jàmm seen émission taxaw seetlu tey euh, ñi dalal fi ki nga xam ne moo di abu euh, Aboubacar Biteye euh, da nga koy bàyyi daal di nuyoo seen Aboubacar maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bro Cheikh maa ngi lay ziar bu baax comme ni nga ko waxee maa ngi tudd Seydina Aboubacar Biteye directeur cabinet maire de Saint-Louis bokk ci APR bu Ndar. bi dañuy daal di dugg bu ndaw waaw directeur cabinet de amna na am na solo ndaxte euh, liggéeyam lenn rek la moy dimbale maire mm-hmm. bo xolé du maire rek moy am cabinet président day am cabinet ministre day am cabinet ñep dañu am cabinet ça à dire que liggéeyam moy dimbale maire si liggéeyam manam yombalal ko ko yombalal ko ko moy si dossier yi yombalal ko ko si organisation yombalal ko ko si audience yombalal ko ko si prise de note yombalal ko ko si analyse discours ak leneen ak leneen relation la aussi avec les conseils municipaux parce que si parti yi nekk la bok bokk nañ fu nek nga war len mën di len baye xel si sa liguey ci bir maire bi aussi relation yi ak euh, liguey bi courrier yi ngay jot ak yi ngay diligenter dossier yi euh, avec les euh, mun les services yu fi nek mo xam service état la moo xam yenen partenaire la seen relation nga taxal ko en tout cas nous le directeur de cabinet mo nga ci organisation mo nga ci intendance mo nga ci communication mo nga ci dossier bu sensible yo xam mo mu ngi koy toppal maire en tout cas pour pour les pour baña a guddal mooy lépp li nga xam ne war na mën yombalal maire liggéeyam bu ñëwee mu gëna mu def ko si nu mu gën a donc lolu lolu lolu amna na solo ah, fi may ñew rek moy di 4 ans yi jàll na ba ngeen nekk ci boppu mairie beeg léegi ah, tay ban bilan nga mëna tek ci table bi pour askan bi mëna xam li li fi jot jaar jaar. <laughs> jërëjëf bro Cheikh lolu lolu émission la. <laughs> euh tay ma ngi ñaan yàlla ëllëg ci bir ngeen ñu war fi ñu mën see waxtaan lolu kessé parce que bo xolé ba euh, dañuy dafa am yu ñu dénk li ñuy wax les compétences transférées. li ci gëna a euh, en général la population bi day fekk mbirim euh, éclairage public gestion des ordures mais aussi les lepp li nga xamné li nga marché yoy économie euh, mais bu ci nek les xolé patch bu ci empreinte Mansour commune Euh, bi si gën a am solo booy xool euh, les infrastructures dama koy wax souvent quoi euh, ndar lu ñu xawoon tàddal mooy que dañ doon am ay maire yoo xam dañuy gérer population yow da ngay fexe ba ñu ne mair bi baax na maire bi tabe na day maye xaalis yow nga fàtte dëkk bi ay investissement yu lourd yu fi waroon am d'ailleurs budget investissement commune dafa tuuti mais Mansour ba mu ñëwee Euh, lu mu gën a lu mu gën a euh, teg lu mu gën a jàpp moo doon fexe ba dëkk bi am ay infrastructure dëkk bi am ay juntuwaay yoo xam ne ëllëg si biir si la ñu mën a sukkandiku pour defar suñu développement bu loolu weesoo da ngay gis si mbirum sport lu mu fiy def euh, à part le sport les marchés à part mais surtout surtout public aussi parce que Saint-Louis aujourd'hui est une ville très bien éclairée euh, on a aussi l'environnement, parce que quand même euh, l'union de euh, gestion des ordures mais ça n'empêche pas que les nañ moyens ay benn ay investissement yo xamné ça prend euh, buñ ñu leen mënee expliquer né leen gestion des ordures mu ngi presque presque presque là un tiers du budget et vous comprenez que

pour ville aussi euh, centre de transformation pour les fii Ilbi île bi prévoir fi projet comme réfection euh, place place place bois de main sur l'île euh, tu vois que dans la voirie il y a ay tëli de ñuy il y a ay mbir santé nous les renouvelons, Il y a toujours un accompagnement socialement la mairie est dans dans l'action sociale avec le maire l'argent au maire Lamine Ndiaye muy santé muy de la dans les fêtes religieuses et au jour le jour je pense qu'il y a beaucoup de choses que xam maire bi def na avons fi nit mais quand même on voit exactement que la la mairie a fait beaucoup d'avancées par rapport à beaucoup de points par rapport à beaucoup de secteurs je dis toujours que les gens disent toujours que non mais quand même moi je pense qu'il faudrait que nous am émission exactement si nous la ñu si pour mëna pour mën matal exactement li parce que quand même euh, wax jé bari rek mais bari na. <laughs> waaw comme loolu wax jee wax jee wax jee bari mais mais mais bari donc gis nañu aussi tamit euh, mi ngi yore ki nga xam ne moo di Mansour Faye mi ngi yore aussi poste ministre yore aussi mairie bi donc est ce que tey euh, ñaari li ñaari ñaari poste yooyu du freiné liggéeyu mairie bi quoi en fait du am tardement ci ci biir biir Saint-Louis. non mënul am tardement parce que maire mhm. moom kenn yorul mairie maire dafa yor équipe. équipe boo xam ne le cabinet le secrétariat municipal les directions mu ànd ak conseil municipal am bureau municipal am leneen leneen équipe la mooy liggéey li nga équipe su dee mooy liggéey mbir mi day yomb parce que ku nekk da ngay def li sa warugar mais ba mu mayee tuuti ba ñuy laaj ba ñuy laaj maire bi man dama bokkoon si nga xam en campagne dañ doon campagne si benn affaire mooy l'avantage corporatif comparatif c'est-à-dire que nous nous avions besoin d'un maire bi nga xam ne dafa am ancrage au niveau institutionnel parce que dañuy fàtte ñun Ndar ñoo am maire maire maire bi fi njëkk maire bi fu njëkk

les sinistrés astafurlah de la langue de Barbarie qu'est-ce qui lan moo fa am la commune ne peut pas le gérer L'État même a des problèmes pour gérer quoi. on était obligé dem uti ay partenaires au niveau de la banque mondiale. waaw mais d' accord mais moo fi war a njëkk moo ko war a def mais aussi lépp dinañ ñëw si projet yi amul benn projet boo xam ne mairie mu ngi koy parce que mënul nekk imagine toi xamul ndax mënul nekk da nga may déglu la la la banque mondiale fait investir ci Saint-Louis sur la langue de Barbarie ak sur euh, sinistré yi environ 16 milliards loolu la ci war def budget commun de Saint-Louis par at xam nga la 1 milliard 200 1 milliard 400 du du yegg 1 milliard 500 kooku lu muy def c'est-à-dire il faut que nous aussi comprendre lan mooy gafaka commune lan mooy gafaka mairie pour ñu mën exactement mairie bu ku la mairie ou nekk wala maire mbiri érosion euh, côtière ak lenen makoy régler day wax lu amul motax may la on a besoin parfois nga am ben ay relation c'est-à-dire carnet d'adresse la moo lay may ëllëg si nga meuna ñew président banque mondiale ñew euh, romb rew yëpp yi nga xam am nañ problème yu ndar di am mu romb la ñew ndar nar fi def ay projet pour les sinistrés je pense que lo tax ñun nous considérons que un maire ministre c'est bien possible mais aussi c'est un avantage pour la ville de Saint-Louis c'est un avantage pour la commune de Saint-Louis et nous sommes en train de nous rendre compte de cela. donc donc donc euh, ñenn ñi dañu ni freinage parce que lu tax freinage am na booy xool tey euh, sinistre yi fi mhm. problème jusqu'à présent euh, mën duñu fexe ba am si benn saafara def naa fan yi sax doon nous avons fait si école yi bu mhm. jógee foofu aussi dem Bango mhm. Bango booy xool population bi ñoo ay ciment ak ay souf di defaraat seen tali yi mhm. Mhm. loolu def naa information ñu moom nga aussi dem euh, dem bu jub mhm. dana am problème ndox jusqu'à présent donc jafé jafé yi am ndar fees bi dellu bëri fii comme ça gaay ko gis donc loolu est-ce que du euh, mooy li ma lay wax rek ñaari yooyu mu gérer wala soit Mansour dafa mënul gérer mairie Saint-Louis qu'est-ce qui se passe lan mooy problème waaw d'abord je considère que sa euh, dernière phrase rek insulte la Mansour dafa mënul gérer mairie ah, ji nga mairie non ji nga mairie Ça à dire que euh, je comprends ni ñi seen wax politique ji nga mairie moo lo xamné ay non nee la gestion mairie yow mi bu la fi tégon nga am seen équipe dang koy def xam nga tax c'est parce que dafa am fu wara jaar ak fu wara démé. quand vous me parlez de tous ces problèmes là ça à dire que il faut aussi ñu xam démarcation bi une mairie ce n'est pas un état ce n'est pas leneen Amna lo xamné dañ koy teg ci mairie bi parce que mairie luñu gis mais du compétence mairie la mairie a neuf domaines de compétence Amna yo xamné bokku ne bokk ci alors aujourd'hui nous ça ne veut pas dire que dañ ne non du compétence non dañ ci def suñu suñu mais comme la la mairie a des moyens aujourd'hui de sortir ces sinistres là de parce que premièrement je parce que première chose moi, que sinistres yooyu noonu nga war Nous jënd Il dafa am leen war Ils je t'invite à xool biir ndar structure bonne réceptif nga gis mënu fay nek ñu gis bañ leen fa def. mais mais mais directeur xam nga tay li nga wax ni d'accord na. Hmm. man nangu naa ko mais tay en fait mënuñu ñu xam li nga xam ni mënuñu ko mënuñu ko comprendre. Hmm. parce que bu ñu gisee problème yi am fii sinistre am na fu mu nekk alors que bu ñu déggee xaalis amul budget amul que ñuy gis parfois dara di xew gis ay concert yi fi jël ay ateliers. merci millions merci million yi nga xam ni merci après lan la ñuy wax naan carrément que non. mais merci laisse-moi dire une chose. <laughs> ok tous ces concerts qui ont été produits à la place fédérale hmm. amul 15 mairies de Saint-Louis bu si dugg. Ah, mais si mairie la jógee rek. non non attends dañuy d'accord ci benn affaire mhm. man dama lay seetaan euh, nit ñaa ngi seetaan maa ngi jàkkaarloog yow li may wax dama ko gëm te dama koy défendre mhm. je te dis lu si ni waaye mën a xalaat yow loo si mën a xalaat man loolu noonu xam nga la mooy sama problème mooy que man li may wax man mu noonu sama aqulaay taala boo xam ne ëllëg ku ma woo foo ma munti woo ma wax ko ko fiftinu mairie jógeewu si il faut que loolu aussi les gens le comprennent mais non c'est c'est Mansour Faye qui a ses partenaires c'est Mansour Faye qui a ses partenaires mais mais non mais non c'est parce que yow c'est parce que yow il faut pas penser quand on parle de partenaire du caa gën a partenaire lay jox xaalis tu peux avoir des partenaires duñ jël xaalis jox la ka si nek ak si fi mu mën nekk mën na la see dimbali sans pour autant mu jox la xaalis il faut comprendre la vie comme ça c'est-à-dire que ëllëg si biir demain que ça soit mairie que ça soit état que ça soit leneen ku si mën nekk di nga mën a am ses partenaires ñu lay dimbali mais la plupart dañu lay dimbali selon ñoom seen domaine ku si nekk sa domaine nga mën a ñëw nit mun na ñëw ne la moom mun na la andil conseil mun na andil ay mun na andil ay mais mun la jox xaalis yow su fekkee am ay ay oto nga ñëw am ay camion ma ne la ah, man de sama commune am naa problème nga ne waaw dama lay dimbale mun nga ma abal camion indil ma suuf te doo jox xaalis c'est exactement ça

non mais non c'est des initiatives c'est des initiatives citoyennes que vous savez ne comprendre mhm. mais les la aujourd'hui mhm. par exemple il y a un projet de l'État qui s'est battu nous avons 5 km il s'est battu pour que mu 10 km aujourd'hui c'est réparti dans la ville mais est-ce que tu peux imaginer que par exemple si la si Mansour en tant que responsable en tant que ministre il avait la possibilité d'un seul coup de rappeler toutes les routes de la ville du ko hein? mais c'est parce que

alors booy liggéey boo demee ba ngalel ngay liggéey mun nañ comprendre nga boole ko si mais boo fa taxawee di def dara commune de Saint-Louis commune de Gandoog ñëw wax la sa bopp. te bu ngeen soxlaa mais non. Ah. mais bu ñuy politique dañuy dem ba dañu dem ba Gandoog. mais commune de Gandoog dañ fay dem di politique. mais c'est-à-dire que dafa am loo xam ne aussi bu bul nangu nit ñi dund si dugal. cest mhm. à que booy laaj su may politique man damay dem ba Matam ma politiqué. kenen day dem ba feneen mu politique mais buñ ne commune de Saint-Louis parce que commune de Saint-Louis motax ñu tok fi dama fi tok en tant que directeur commune du commune maire de Saint-Louis quand je te dis que la commune de Saint-Louis euh, Boudjik n'est pas dans la commune de Saint-Louis c'est parce que c'est comme ça moi, exactement ça Maintenant, nous, ce que l'on fait il arrive que ñu diligente ay dossiers yoo xam ne c'est c'est parce que justement SONES moo koy def xëy fait. yàlla may nañu ay acquaintance wala ay relations qui ñu permettre au niveau de la SONES ñu def ko mais est-ce que xam nga ndox en tant que tel ndox du commune moy ñëw diko jox. parce ah, que c'est la SONES mais j'ai vu les ñuy jox fépp. mais non parce que non non attends il faut il faut faire. cher cher je te dis une chose cher je te dis une chose tu es un journaliste. voilà ah. bon un journaliste en herbe et je je suis convaincu que tu as une belle carrière à faire il faut toujours faire attention. il faut toujours faire attention nee la daanu dañu il y a aucun régime dans la commune wala fenen booy le maamatal lépp.

temps boobu ñu jël c'est-à-dire que bu ñu waxante dëgg rek waxante waxante leneen c'est-à-dire que mënuñoo ñëw tey ne tey aujourd'hui à Boudiouk toutes les personnes yu am problème ndox dañ koy régler tey c'est la SONES et la SONES dafa am nu muy liggéeyee dañu am seen programme léeg-léeg nag SONES am projet boole si ay branchements sociaux et ces branchements sociaux là on essaie de faire de sorte que dans les périphéries en général les zones périphériques nous avons un problème Si noonu Bujuk beaucoup, il y a des qui ak Bango mais dina am parfois aussi tout mu am si biir ville mais ces zones périphériques les gens qui ont un programme ils ont 1000 branchements sociaux mais 1000 branchements sociaux si quartier boo 2000 mais dina am yeneen 1000 yu amul c'est exactement ça et puis au fur et à mesure boo régler li nga continuer Ça veut dire que lu ñu war que au moment où nit ne amul nit nous donc nit kooku un la am am lu tax mu la je pense que buñ comprendre leen duñ sonn mais ñew taxaw ne bu aujourd'hui bu mëno imaginer que né ñëpp amu ndox n'est-ce pas ah, mais non d'accord na ci luñu wax mais buñu génné c'est parce que amul mmh. mais limu bëgg a expliquer moy mmh. bu jug suñ ne amul ndox ça ne pas dire que bu yu amu ndox ñeneen ñu ñu def am ndox c'est étape par étape c'est exactement ça aussi donc donc fan aussi gis nañ nga nga génn def benn déclaration ci benn télévision xamal ñu que Bamba Dieye dafa dafa dafa en fait dafi bàyyi boru 400 de francs CFA fii hmm. euh, ko leeral parce que gars yi boobu léegi ñu ngi naan waxu politique la wala lu am la donc bu fekkee mën ngeen ci indi dal ñu leeral bu ndaw écoutez moi je pense que euh, am na yoo xam ne du ma si euh, du ma si xuus waxoon naa si du ma si waxaat pour la bonne et simple raison que Euh, on est en période politique ah les gens dañuy ut ku leen ku leen ku leen may bës du ma si dugg li ma waxoon laa waxaat li ma li ma wax et je pense que loolu noonu les gens peuvent euh, peuvent peuvent voir ça librement nous leen mën mais je l'avais dit c'est exactement ça je je vais pas je vais pas comment demander sur ça Je ne vais pas commenter sur ça. Mais il y a 400 milliards, 400 millions, Je pas commenter ça. <laughs> ok, am problème. Mais aussi tamit euh, ñu gis li euh, gis li nga xam ne moo di euh, Khalifa Sall Karim Wade ñu ngi ci prison bi te élection yi ñoo ngi jege si alors est-ce que ñu leen def

su ko defee dañuy xam ne loolu la c'est-à-dire que le cas Khalifa pourquoi man peut-être que peut-être doo si bëgg a débat sax euh, c'est parce que bu ñu waxante suñu aqulaay taala au-delà de la justice au-delà de leneen c'est-à-dire que nit bu toogee ñu reproché ko dara mu waxul ne man defuma ko daf ne du man rek maa ko def c'est-à-dire que ba pare nag ñuy continuer di supputer si wax ñi c'est parce que en un moment xëy na nit ñi am na leneen lu leen soxal mais dëgg soxalu leen mais nit bu toogee ne man du man rek maa ko def c'est parce que moom comme nangu na ne moo ko def mais su dee nangu na ne moo ko def nañ bàyyi yoon te ko loxoom De la même manière, à la commune de Saint-Louis, il n'y a pas de caisse d'avance. La loi le permet, mais il n'y a pas de caisse d'avance. Mais Saint-Louis-Dakar, non c'est pas une question de Saint-Louis-Dakar c'est-à-dire que la loi mairie war na mën a caisse d'avance mais au même moment où la mairie war na a caisse d'avance daf faut la yow soo utiliser da justifier mais justifier cas Karim Wade aussi je pense que c'est la même chose Hein. c'est Karim Wade c'est la créé, moo nekk ak moom et je pense que. luñ ko CREI wala wala wala wala wala nguur bee nekk ci dossier. ça dépend de ça dépend de ce que tu comprends yow mën nga wax lu la neex man je te dis CREI. c'est exactement ça.

muy impôt domaine jëlee na ko fa hmm. tu vois donc euh, Karim Wade génn nañ ko dëkk bi Alifa Sall ñu chose donc tout le temps adversaire yi nga xamni kenn la xamni ne xëy mënu lu dara je ne sais pas mu Idriss Seck ndax mom mom xamna naa jëmante jaar ku ñu ko am hmm. mais ñu fi jotoon nek di ay candidats yi nga xam ne ñoo doon candidat potentiel yëpp tu sais, c'est c'est vraiment dommage en tant que jeune que tu aies cette lecture-là. Mais man, je t'invite mm -hmm. à essayer de voir à chaque fois, mm -hmm. aller dans le fond des choses. Aller dans le fond des choses, moi, exactement euh, euh Sonko mm-hmm. par rapport à son statut de de de fonctionnaire lan la def ba ñu dindi ko fu mu nekkoon boo ko xoolee pare bu la doyé xayrun bu la doyé saalika tu es libre nga dem ci euh, Khalifa Sall la même chose nga dem ci kenen la même chose en tout cas à chaque fois je me dis que euh, tu peux avoir une lecture politique une une lecture journalistique mais essaie d'aller dans le fond des choses et de comprendre. Mansour du tok du noppalu ñu xëy lundi am ku né non maire bi gagné fi un mois. tu sais pourquoi c'est parce que les gens ñoom ñoo bëgg yow nga ñëw tok bàyyi li ngay def nga ñëw toog si lu ñuy def di non mais benn instant il faut ko ko non mais non c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire nga li ngay wax nii ji nga li ngay wax nii xam nga ndax taxawul c'est-à-dire man mënu ma nekk responsable di ut ay nit ñu ma àndal ay nit ne dañuy ñëw ma ne leen du ma leen faale loolu fu mu mën a amee yooyu yéen na maanaa yéenuwul maanaa quoi il faut que aussi ñu bàyyi cette manière wax naa la ko suñu problème mooy que set manière de faire de la politique ne ñëw ne toog ne lii fii nii mais bu toogee nii nii nii su fekkee am na lu ay ay ay ay signature yu mu war def ay lu mu dañuy dirigeante si si si liggéeyam lan la ñuy wax day ñëw taxaw bu ne non non def déglu rek day ñëw taxaw mais mais euh, avec papa Pape Samba la dernière fois kan moo fa dem. Aminata liggéey. waaw mais liggéey Gueye c'est pas une responsable. avant mu dem dañu nekk dégg naa. mais non il faut arrêter ça. il faut arrêter ça. waaw léegi bu ñu jógee Pape Samba beneen mouvement bi. beneen mouvement bi moom yàlla def na ni moom maa su fa dem mu toogal boppam. non après def na yeneen activité mais non c'est-à-dire que écoute c'est-à-dire que pourquoi ce mouvement là Yakarne, y mhm. lu organisé le monde organisé de war a ñëw taxaw. non est-ce que est-ce que mais non si loolu ngay expliquer. je suis vraiment désolé mais c'est ce que tu veux expliquer quand tu fais le lancement imagine-toi. Mhm. quand tu fais le lancement d'un mouvement. que nous, toute la paix toute la paix nous Bokk Yaakaar responsable nous ñëw toog nous gi ñëw toog ba mu jeex est-ce que nous cëram. Euh, moo tax mu def ko mais au moins ne le def pas. ok léegi di di fàttali suñu mbokku internet yi tey ku ñu fi dajal la ku ñu ci toogaloon di defar bi Seydina Babacar Biteye wax na na ko ñan yaa ngi toog ki nga xam ne ku garaaw la. mais non non. ma Ndiaye nga xam ni ki nga xam ne ku garaaw la. non non tamit gis nañ ko donc dañ lay rek nga mu yokk mbokk internet yi ndax question yi bëri na mais temps bi aussi kon nag gars yi ñu ngi si ñaareel gisoo moo tax dama lay remercier dama lay remercier wax dëgg yàlla tu es assez, assez poignant dans tes, dans tes questions. Seulement, essayer de les bagner. <laughs> euh, de le rafetlu jotaay bi ah vraiment. moo vraiment ma ne la wax dëgg yàlla. man je voudrais que si beneen jotaay si beneen format. ñu toog wax exactement luñ fi parce que à chaque fois da ngay toog di wax réalisation ñu ne non temps bee ñu xoj yooyu noonu euh, li am solo nous on est là pour le meilleur de la ville. Euh, amul kuy de di bëgg ñu jëlee la fi. te li la fiy tax nga toogaat yaa koy liggéey ñoo ci daanu matu souf c'est vrai mais au moins que dafa am lo xam yaa koy enclencher di ñaanu mat lu fi am nak jamono ji parrainage mo fi nek di ñaan ñi di ñu parrainer le président Macky Sall képp ki nga xam aussi yaa nga kenen keneen nga parrainer keneen ëllëg si biir ñu dem ñu xol mais au moins ce parrainage là ñu xam ne c'est une bonne chose pour la démocratie day tax ñu avancer amna point yu bëri yo xam war nañ ko mën discuter la luñ ci parce que man dama bëggoon ñu dugg suux si biir ci sénégalais yi dama bëggoon ñu suux si biir ci parrainage bi dama bëggoon ñu suux si biir ci génie ñu xam exactement ban taxaway lañ wara taxaw c'est très important et puis aussi ñaan yalla ñaan ah, dans le dans le politique le jeu ñu commencé di waxanté di waxanté dëgg di bañ di nit ñi lo xamné euh, je pense que c'est important que nous am en tout cas man bok dama di ndaw té nous euh, lu na ma war ko def à chaque fois bañ di ne du wax mais c'est parce que au moins am accompagner loolu dynamique là bi nga les jeunes ñoo nous mel fo mënti nous ngay wax lo xamné ne ci ñu man bo ñew lo mère mère deug la lay wax bo démé bo démé tamit waxtaan sa xalaat di nga xamné deug la lay wax mu Mansour fay ci loolu lañu yéré euh xeyna à son image aussi les gens bëgg nañ ay rumbaay ay mbumbaay yu bari yo xamné mom moom gëmu ko duñ ko def nénañ nak mënuñu politique mais yalla ñu situal bobu légui ñuy gagner élection yalla ñu yalla gëna a ñuy gagner amin donc euh, bokk internet bi Saint TV donc li la lay indiloon sen émission taxaw xaw euh, seetlu di gërëm aussi euh, sama ñaar technicien yi ñu di Ndiaye Fall ak wóor sen Ndiaye ministre leen jox ci ak daje ci yeneen numéro yi incha allah salaamaaleykum